asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñuy bàyyi xel ci jamono ju nekk ak saa su ne mbokk di leen jaajëfal ànd bi ngeen di ànd ak suñuy programme ci site bu am solo bii di jàmm ji info mbokki nag ñoo ngi dem rek fas yéene dem en direct ca euh, Ndar ca Saint-Louis euh, fekk fa rek ki nga xamante ni muy euh, seen président communion Guet Ndar li ko waral nag lépp rek incha allah bu nuyoo ba noppi rek dañ ci dellusiwaat seen ñu lay nuyu bu baax Mamadou. waaw ah, maa lay fay alhamdulilah. ñu leen di siyaar baax a baax di leen nuyu jërëjëf jërëjëf seen seen ci ñu jëm directement rek yaakaar naa ni muy actualité bi nga xam ne rek dal na ci li nga xamante rek moo di ñenn ñi nga xam ne ñu ngi jëloon li nga xam ne moo di gaal fas rek dem fi nga xamante ni rek ca bitim réew jaaree ko ci ndox mi di Espagne ginnaaw si rek ñu seetlu ci ni <coughs> dafa mujj am gaal yoo xam ci yenn gaal yi. gaal bi hmm. tàkk na waaye nag yooyu hmm. yóbbaale ki ay doomu aadama yoo xam ne ay bakkan yoo xam ni nekk na loo xam ne lu tiis la yow en tant que euh, président communion euh, Guet euh, a indil ci loolee. jiite mooli fii si Saint-Louis Guet Ndar. Hmm. ci gi. dëgg li am noo koy mettitlu di ko ñaawlu. ndax jamono bii ñu toll phénomène la boo xam ni ñëwoon na mais dafa dellu si waat. diggante deux mille cinq deux mille six. Mhm. mbëkk mi muy clandestin demin bi baax na baaxul parce que li tax baaxul mooy accident yi si am tey te accident bi am nii nu ngi koy mettitlu di ko ñaawlu di di di bokk ak yi nga xam ni noo ñàkk seen bakkan di bokk ñoom tiis yi mhm. doo benn nit dee sax musiba la rawatina ay lu naan cent et quelques personnes mhm. rawatina ak ñu naan gendar benn pêcheur deewu si. d'accord d'accord amul benn pêcheur bu si dee gaal googu maanaam convoyeur bi mbuur la nekk mbuur la convoqué ñi nekk Saint-Louis ñi nekk Pikine mhm. ñoo xam nan lañ voyagé ba dem mbuur ñu dem daje foofu vendredi daal lañ dégg accident bi am na ni ni ko noonu la ñëpp ñëpp noonu lañ ko yëgandoo effectivement parce que dem la boo xam ne kenn ku ne da ngaa nëbbu kenn bëggul ku la dégg mhm. sa waajur bi la jur sax bëgguloo mu yëg bu la mu tere la du dëgg moo tax dem bi dëgg yàlla war nañ ko xoolaat bu baax ndax daa encaissé ku daa mhm. jël kon ki ñi ngay jël yan façon na ku jaay alalam am na koo xam ni yaayam jaay na alalam jox am na koo xam ni maanaam jaay na këram mhm. am na koo xam ni jaay na leneen ngir ak dem ndax tukki boobu lan nga fay fekk lan nga fay fekk mhm. tukki boobu yal na yàlla def képp ku tukki foo man nekk yal na yàlla suturaan amiin mais nag tekki moom sa yàlla la nekk tekki sa yàlla la nekk waaye nag demin bi nanu ko xoolaat bu baax ndax boo xoolee gaal gi sinaa bi nga dal ñi nga gaal ñi leen di jëñ amul benn sécurité parce que demul nëbbu la amul gilet de sauvetage amul benn mool boo seen bi bateau secours bi ñëwee ak gaal yi nga gis ku sol gilet de sauvetage amul effectivement ñëpp dañuy ñi ñi man fii daal ñoo ngi tinir seen bopp d'accord monsieur Sène du la dagg foofu ndax dañu dégg ni euh, am na ñi nga xamante ni daanaka ñi ci loru daanaka ci pikin euh, ci gox euh, diwaanu Pikine lañu la ñu dëkk te ñu ah. dégg nga ne gendar kenn kenn kenn ñàkk fa bakkanam waaw daanaka ñi dee ñëpp noo bokk presque benn koñ Pikine Anglical mhm. foofu daal atabluwaal ñi dee ñu foofu la nekk wax dëgg yàlla mais gendarien amul benn gendarien bu si nekk ci TGR gendarmerie amul kenn ku si nekk. d' accord d' accord monsieur Sène euh, ñu dellu si waat tamit ci li nga xamante ni mooy souvent dañ koy xool rek muy wàllu yoon wi am na ñi nga xamante ni problème bi dañuy bëgg ni dañuy dem mais est que direction bi yoon bi miin nañu yoon bi miineel goo xamante ni te aussi tam euh, li may waxaat mooy te aussi euh, genn wàll gi xamuñu ndox te en plus amuñu li nga xam ne wàllum sécurité. waaw kay monsieur Sène mu mel rek li ma bëgg wax foofu rek mooy dañuy <coughs> ñi nga xamante ni dañ dañuy wootee ni seen bopp xëy na ñu mool lañ. te li hmm. ngeen ko waxee yéen daanaka lu ci bari du leen ko yëg daanaka dem hmm. ku nekk ay làqatu la daanaka jéye bi bu amee nag ñëpp yëgandoo ko noonu euh, li wax rek mooy ñi en tant que yoon bi am na ñoo xam ne dañuy jàpp ni yoon bi miin nañ ko fekk miinuñu ko ñeneen ñi tamit sans euh, gilet de sauvetage duñ ko am mais loolu est tamit loolu euh, yéen ci gën a bàyyi xel en tant que loolu da a jëlaat leçon tëgg gaal wala ngay tëgg clandestin noo ngi ñaan autorité yi buñ leen jàppee képp kun si jàpp ñu teg la daan boo xam ne bi mhm. parce que dem bii noo dem di lor doomu nan la teg daan bu metti pen nan la teg pen boo xam ne bu ëllëg kenn doon ko defal mhm, mhm. parce que dem bii nu dem di jaar ci gaal yi risque la tey lan ngay fekk Espagne jànguloo amaana kon moo la accueillir kan moo lay am na ku la mën jël mais bu la jëlee nan la lay inversé nan la lay téye boo demee dama nan la téye trois cent nga soog a am kayit wala doo am kayit ñi demoon deux mille cinq am na ñoo xam ne ba léegi ñoo ngi souffrir te lanu nekk foofu seen waajur yi xamuñu ko bëgguñu ko nettali yow boo ñëwee yow dañ lay dañ lay mere. Mm-hmm. am na ñoo xam ne jëfin ñaaw lañ fa nekk. Ah, am na yoo xam ne ban demee ba léegi dellu si woon ah, te loolu lu métti la. Mm-hmm. ñii dem nag yàlla yàlla def kenn ku ne àgg si jàmm. Mm-hmm. amiin amiin ñoom ñooñu fa toog képp koo xam ne sa wërsëg nga fa yàlla na la yàlla def parce que jamono bi. métti na waaye jamono bu ñëwee dafa am nu ñu koy muñee. effectivement te jamono mënul neex toujours jamono tey neex beneen at ñëw mu naqari. effectivement euh, euh, euh, mais li ñu bëgg a wax mooy départ bi ñoom en tant que si investigation yi ngeen am départ bi fan la woon Saint-Louis la wala Mbour la tamit mu gën a leer. ma ni yi am na yu départ mais Saint-Louis fii. Mhm. jamono bi nga xam ne maanaam bël bi embouchure bi fii gaal gu fiy génn ku nekk. Mhm. yenn gaal doo leen sa yëg mu nuy dem mais gaal gi jañewul Saint-Louis. Mhm. Mbour la jañe. ndax ñii accident bi mu amee ñëpp ko yëgandoo. gaal mhm. gi mbuur la tàkkee mbuur la jógee. ba gaal yu daw dal seen kaw. boo boto bi ñëw marine bi fekk leen fa. yaa ngi gis nit ñi ni noo féeyee. Mhm. nga xam ne ñii bu ñu amee mhm. si filet de sauvetage. loo xam boo xoolee gaal yooyu di jëm yëpp parce gis nga gaal bu si am filet de sauvetage yi leen di wan. mu leer na ni bu accident amoon daa leen mën for par kenn. mais gaal gu tàkk kenn safara kenn du ci toog kenn ku ne da ngay simple ndox nag boo simpalee boo mënulee fii. Mhm. dafa mel ne beteex boo sànni si ndox rek. effectivement day dem euh, euh, li may li may li may wax foofu est-ce que li leen inspiré fan yi gis nañ benn gis nañ vidéo yoo xam mu ngi daw ci réseaux sociaux yi di leen xamal ni euh, fii jàmm rek fi nekk di di di di xëcc maanaam di xaptal mu mel ni dañu am di xabtal ndaw yi ñu mën a ñëw loolu tam loolu tam yan solution lañ ci mën a jël en tant que yow tey sa taxawaay. waa ah, xam nga image yooyu yëpp maanaam ñoom ñooy provoqué provoqué nit ñi pour nu ñëw. Mm-hmm. bu ko defee xale yi na naan feeñ moo fa am. na ko woote te leer na ni boo demee ndax daa am liggéey. ah, ah lan nga fay fekk. Mm-hmm. kañ lañ lay kañ lañ lay kan moo lay inversé ñaata weer. bala ngay jàng ba di mànkal espagnol wala anglais. kañ day am liggéey mën nga dem si tool yi. Mm-hmm. am na ñu fa demoon boobaa léegi ñetti at ba ñeent amuñu kayit. ah, ah du dëgg. ah oui ñaareel ba am na feebar bu fa am feebar boobu boo demee dañ lay quarantaine ñaata weer. Mhm. ah oui yooyu daañu la wax dëgg yàlla. effectivement nañ def nànk-nànk addina mhm. kenn du tëb ku yàlla rey bindul benn nit si benn fan. Mhm. si wala si ñaar fukki fan rey la si benn fan. effectivement effectivement. Ah, li jiitu sa dënd li jiitu sa judd yàlla rëdd na sa loxo bi. bien sûr. waaw ah, nit ñaa naan mbëkk mi mbëkk mi gaali gaali mooli mooli. ñooñu dee duñu ay mool. te mool yi kese demunu ñee dem ñi si ëpp duñu ay mool maçon ak téye rek footballeur rek ku nekk ngi si enseignant ku jàng ba am sa ay diplôme mais ñi ñi fàq boobu ñoo fàq di dem lan la lan moo xew lu doy waar lu doy la nag lu doy la kenn xamu ko phénomène la boo xam ne kenn mën la ko wax ah, lu doy waar gis ñoo xam ni tey bàyyi nañ fi teraanga ba pare dem dugg si gaal yi loolu xaru la day na waar day na loo xam ni tey bu la yàlla bindee <laughs> tey si ñaar ci fan nga fexe ba naan di dorogé wala ngaa def lenn yeneen xaru la. ah oui ah euh, sa bëkkan xaru la. Euh, jam jamono ji euh, en tant que tey yaa ngi gét ndar foofu noonu mais fi may tëjee rek muy tey Pikine muy mel ni tiis bi rek ñu ngi leen koy jàll ñu ngi jàll mboolem yi nga xam ne tam ñoo ngi foofu di yeewoo ci gox boobee. Mm. nag ngeen dundee jamono jii dëkk bi foofu noonu parce que nekk na loo xam. métti na métti la wax dëgg yàlla métti na noo ngi bokk ñoom tiis yi ak naqar yi. di métti lu mbir mi nga xam ni dafa dal tey si Saint-Louis. Mm-hmm. Saint-Louis yëpp la dal parce que mool ak ministre élève ak képp ku mën doon footballeur ba yëpp ñoo bokk gaan ñoo bokk Saint-Louis. wallaay mais par quartier la quartier bi mu bi mu dal nag. loolu mm-hmm. bokk ak ñoom tiisoo ak naqar wi. bien xam ne lii musiba la bu yàlla indi rek. nga mm-hmm. xam ni lii mooy musiba. wallaay bu ñu xaaloo inna lillahi ñoo ngi de si yàlla lan jege woon si yàlla lan dellu. waaye waaye nag yàlla nañu jubóog seen borom. amiin yaa rabbal aalamiin dañ doon dem rek doon sabab lu ci accident ñëw seen kaw. alhamdulilah walaay. waaw accident ñëw na seen kaw nag waaye nag dim bi nañ ko xoolaat. nanu moytu gaal yi xam gaal yi noo dugg yan façon gaal la. am na ñoo xam ne bu la jëñalee gaal mën nañ la yóbbu ba léegi Espagne. waaye am na ñoo xam buñ la jëñalee gaal duñ la sa yóbbu euh, sali lan laa yóbbu dellu si waat. day na waar day na waar. waaw day na waar. yàlla defal jàmm. kon moytu bu a baax. jërëjëf monsieur Sène. moytu moytu euh, ñu ngi lay sant tam ci ah. disponibilité bi wax dëgg yàlla. responsabilité. Mhm. nañu jël seen responsabilité sécurité bi nañu jëlaat seen matuwaay ñu jël seen responsabilité. Mhm. ba encadré ñu xam ne waaw jërëjë jërëjëf euh, Sène ñu di ko santaat bu baax a baax président communion Guet euh, Ndar oh. euh, gis ngeen ko rek ñu di ko santaat bu baax ci taxawaayam waaye tamit gis ngeen ko li mu soññaat tamit ndaw ñi bàyyi loolu leen ko xel bu baax a baax mu nax nekk loo xam ne lu lu am am solo la aussi tam mm. tam mm. bàyyi fi sa teraanga bëgg tam neen kenn xamul phénomène bi lan la bàyyi fi sa mm. teraanga bàyyi fi njaboot gi bëgg bëttaat génni te loolu xamoo loo fay fekk tam effectivement tam loolu dañ ko bàyyi xel bu a baax kon ñu ngi lay santaat monsieur di la jaajëfal